Par une après-midi ensoleillée du mois d'avril, la ville de Thiès a abrité dans une ferveur extrême la cérémonie de formulation de prière organisée par le cheikh El Hadj Bakar Diagne. En souvenir de ses parents et amis. En effet, le cheikh qui a décidé de se rappeler aux pieux souvenirs de ses amis et parents et de tous ces êtres qui lui sont chers a prié pour le chef de l'État, le président Abdoulaye Wade, à qui il a souhaité longévité et santé pour terminer son mandat en paix. Cette paix est devenue denrée rare en Afrique. Cette paix, il l'a souhaité et a prié pour qu'elle s'installe dans le pays. Les prières formulées concernent également des êtres qui lui sont chers, comme le président de Centrafrique, François Bozissé. Le président Idriss faisait partie des gens pour qui il a prié. Christian Abadi également, Valentine Abadi, Audrey Abadi. Sans oublier l'ancien juge Kebambaye, dont la mémoire reste encore vive dans le cœur de tous les Sénégalais. président Ablaye Wade dem na fa bërki démb yàggul keroog ba ñuy dem dafa fekk sama yaram sutaate waaye maa ngi a doon ànd yàlla def nag ñu ñu bëggante ndax moom François Bozé dafa yàgg bëgg président lay Wade. di ma ko wax guddi ak bëccëg président dafa toog fii di projet dama koy defal surprise dafa falu demuma ca keroog bañ koy investir muy def feetu nangam demuma ca bii yoon nag dama koy defal surprise yónnee message boo xam ne Boucher yëgu ko keroog man la ñuy téléphoné fii maa leen jox numéro président Boucher ñu ñu woo ko pour wax ko ne ko dañuy ñëw ñu dem Abuja jóge fa dem ca moom mu teral leen président invité ko pour mu ñëw Sénégal ma bëgg diggante boobu itam ñu ñaan ci yàlla yàlla dëgëral ko diggante président François Bozé ak Ablaye Wade. Les prières à l'endroit de parents et d'alliés de qui le Cheikh au nom du Coran resté attend bénédiction et bienfait ont également été formulées. Dans l'espace noir de monde et empli de chants et de psaumes à l'honneur du prophète Mohammed paix sur lui, les plénipotentiaires de la République avaient pris place. Maître Ousmane Gom, ministre de l'Intérieur bien visible, et Cheikh Tiansi, ministre de la Justice. Ils étaient venus apporter, comme ils l'ont dit, dans leur message, le message du chef de l'État, et par la même occasion, ils ont témoigné au Cheikh El Bakar Diagne leur sympathie. ndax gouvernement xëy na bu yónnee ci événement yu mel nii benn ministre lay yónnee wala ñaari ministre wante benn ministre d'État. daaw ko weesu bu ngeen gisee nag ñaari ministre d'état de souveraineté ñëw ci bés bi am na lu mu mooy Ablaye Wade moo fi toogal boppam. On peut en outre saluer la présence de El Hadj Mansour Mbaye, du sénateur El Hadj Bachir Kounta et d'autres éminentes personnalités. Habillé de noir, entouré de ses parents et d'un bonnet assorti, El Hadj Bakar Diagne chef religieux et fidèle partisan du président Wade plébiscité élevé au-dessus de lui-même par ses frères a écouté les éloquents témoignages à son endroit il s'en est réjoui des échanges de haute teneur spirituelle ont rythmé la cérémonie tout comme il a été rappelé aux chefs religieux leur mission en tant que régulateurs sociaux dans une démarche de sursaut spirituel et moral le cheikh a convié les Sénégalais à emprunter cette voie d'urgence comme aux États-Unis où le référentiel religieux revêt une force particulière avec la Bible reconnue comme le fondement religieux de la Constitution. Après la cérémonie protocolaire, la manifestation s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Une nuit de prière et de récitation de Coran devant de nombreux invités qui, malgré la fatigue et la pression du sommeil, ont veillé pour profiter le maximum possible des bienfaits issus de cette nuit à إلي أنما إلهكم إله وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا